ki ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net nuyu nañ leen bu baax a baax nduyu mbokki Sénégal nduyu mbokki àdduna waaye mbokk yi tey ñu ngi fora bu ñu ñëwee fora loolu yàqul dara ci émission bi bu ñu ñëwee Fora dañu fi fekk amateurs yi parce que dañoo dugg Fora parce que bi ñuy dugg Fora tey dañuy waxtaan ak amateurs yi nga xam si ni ñoom ñoo nekk si làmb di dund si làmb waxtaan ak amateurs yi nga xam si tey ñoom ñooy dund làmb tey fii nga xam ne mooy Fora kon Cheikh laay àndal ñu topp ma ñu waxtaan ak gars yi nga xam ne ñoo nekk ci Fora bi di dund làmb parce que làmb am na ay jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ñoo bari ba jafe jafe-jafe yi am ci làmb bari na lool problème yi am ci làmb bari na lool ñu waxtaan seeg ñoom nan lay demee nan la ñu koy saa waxtaanee pour mu saafara waaye ñu ngi nuyu président CNG Bira Sène ñu déglu gars yi li ñuy waxtaan ci làmb xool lan siy jëlee ay solution nan la ñuy def ba trouver solution yi nga problème yi nga xam ne ñooy am ci làmb kon mbokk yi ñu xaar ñu dugg fii xool fekk fi jaaykatu yàpp yi laay maa ngi lay nuyu. delloo siyaar jëwriñ ci loone sant yàlla bu baax. yaa ngi nekk fii di gor yàpp di jaay yàpp. yow moom gaan sunu mboox nga ñoo far. oui billaahi. laay euh, naka nga dundee problème yi nga xam ne moom mooy am ci làmb. non làmb moom instant bi nii bàyyi yaram wax dëgg fa neex yàlla ñu ngi dund ay problème yoo xamante ne yéeme na trop parce que tamit ak ñuy yàq làmb tamit xam nga ak amateur yi yi bokkuñu comprendre nga des fois nga gis ko sa mbër daan gaañaan xam nga nga jékki-jékki yàq làmb ji tamit loolu noonu baaxul si ñun li ñuy yàq noonu esat ñun ñoo ko moom n'est-ce pas li ñuy yàq esat suñu alal la bu rafetee ñun ñoo ko moom bu ñaawee suñu bopp lañ ñaawal tamit fa la ñuy njëkkee béy sa weemu tànk ku daanu tey rek amal sa waaye nga yàq tas ay siège ak affaire yooyu bu yàggee amateurs yi duñu am fit pour dem lamb ja c'est incompréhensible lamb bu njëkk dañ doon sañse nice dem toog si biir lamb ja xeen lu neex ñun waa Fora loolu xam suñu mbër bu daanoo sax dañuy ñibbi si nice comprendre nga mais loolu tamit liy yàq lamb ci la bokk jërëjëf jaajëf jàmbaar euh, Cheikh dégg nga loolu dañuy duggaat ci biir ñu xool ñi ñiy jaay yel am na yiy jaay yel ah soxna def yaa maa ngi jaay yeel Fallou mu ngi dox. nice kay waaw laxas ñaata. fanweer. fanweer rek nga am laxas. waaw fanweer nga am laxas togg sa dëxin. Ah. wala nga def sa maafe. maafe waaw def ba def ba mu baax bilaahi. jeex na 3000 nga naan sa support togg sa mais grand maa ngi lay nuyu. waaw waaw. ci loo ne. nice kay. lépp jàmm taw bi <laughs> tey na damaa dugg xool gars yi. Ah, ñu waxtaan ci làmb problème yi am ci làmb yëpp. ñu waxtaan ci man ak gars yi yi maa ngi leen nuyu. waaw sëñ bi ziar bett naa leen tey de. waaw noonu la war a demee dëgg la dëgg la. problème yi am ci làmb ku ñu daan sa mbër nga yàq. ku ñu da ku sa mbër daan nga yàq. mais loolu di yoon ndax tey làmb boo gisee mu demee ni làmb fair-play ku daan ñoo bokk Sénégal ku daanul ñoo bokk Sénégal dañoo war a bokk ndey bokk baay xam ne xam nga làmb ñëpp Sénégal lañ dëkk waaw noonu la demee problème yi am ci làmb. waaw noonu la noonu la noonu la làmb moom. waaw mais tamit làmb ak tension làmb ak ak fougue mënut a ñàkk quoi. mais jeunesse bi war nañu ànd ak waaw mais jeunesse bi waaw li nga wax jeunesse bi war nañu ànd ak dal quoi da xam ni tamit mooy loolu lamb folo bàyyeekul daanu ruus mais nañ ko def ci fair play rek ñun ñëpp ay kii lañu mais yaa ma gën a xam. fii mooy palaasu kan. fii mooy palaasu Ndelle Mbaye sunu grand. Ah, Ndelle Mbaye waaw waaw. ok palaasu Ndelle Mbaye ah, ah palaasu Ndelle Mbaye moo nekk ne mais fii mooy palaasu Laye Pata xaar ma dugg fii mooy palaasu Laye Pata xaar ma dugg taxawal noonu grand waaw gis nga de maa ah. ngi dox. mu ngi dox. moo ngi dox waaw. Ah. ah kii mooy Laye Pata Laye maa ngi lay nuyu. problème yi am ci lamb la ñu bëgg a xool solution ñu gis ku daan ku ñu daan sa mbër nga yàq ku sa mbër daan nga yàq tey noo ko dundee. waaw ah, mais moom noom làmb moo baaxoo coow rek quoi mais nag dañu comprendre rek xam ne daan sa mbër nga muñ rek xam ne dañu war a daan sa mbër te bu ñu daanee sa mbër ëllëg sa mbër mën a daan. loolu rek quoi mais tamit ñu tamit ñu delloo ci xel yi tamit bàyyi yenn ŋàññi nit yeeg yenn xasante yeeg yenn waxu ñaaw yi jaru ko quoi te nag keroog li am keroog ñoom Bécaye Mbaye ñu toog di kaas keroog bi Modou Lo di bëre bàyyi bàyyi ma ñoon ñu ngi fa woon toog te gis nañ li xewoon te kaasuñu li ñu kaas keroog kon nag man sa lamb nañ yemale nit ñi ay kii dafa nekk ci yoon ak kii nekkul ci yoon lañ war a jël tegee ko ne parce que Modou Lo di bëre bàyyi ma ñoom ñi wax tey ñu ngi ko woon te waxeewuñ ñu ñu waxee Lamine Samba ma wax benn yoon. Ah, ñu waxee ci diggante Modou Lo ak Baye Mandione waxeewuñ ko ci combat bi combat bi parce que bu ñu ko waxoon ci combat bi du demee nii mu demee ni te jour boobu Lamine Samba moo ne ah def la carte d'appui benn yoon la ko wax waxaatu ko kon nag lamb dinañ bàyyi par parloo bi te du ko teg ci code bu ko tegee ci yoon mbër nañ am ñu bëgg te coow jib Zil maa ngi lay nuyu. waaw maam Fallou bëgg ci loone waaw sant sëñ Tuubaa rek. yàqu-yàqu yi am ci ay ci làmb. waaw li yàqu-yàqu yi de man su ma xoolee ne si jikko yi lay doon rek ndaxte ñoom ñuy seetaan làmb dañoo war a nekk sportif ndax sport moom boo ko bëggee gëm il faut nga nekk sportif njëkk nangoo gagné nangoo perte fii ak dëggaloolu sa xol loolu rek pour nga doon nga réussir si day jafe trop. Mhm. waaw si doomu aadama yi ñoo war a xoolaat seen bopp ñu supporters yi rek te ne lii foo la daal comme génnul Sénégal dañ ko dañ ko rafetal daal moo gën daal. sama gis-gis su boobu waaw jërëjëf. ok laay dagal ma liibar ma ñëw sama cadreur la. grand maa ngi lay nuyu. gars yi fu ne laay dugg fu ne. grand na def. maa ngi fi. ça va. la. Ousmane laa tudd Pico. xoolal caméra ak Ousmane. waaw yàqu-yàq yi am ci làmb noo ko dundee. waaw ah, métti na ñu koy naqarlu trop gars yi dañoo war a xam ne làmb ñu ñoo ko moom ñoo ko bokk dañ ko war a rafetal defar ko waaw Siteu rek la ñu am Siteu rek la ñuy bilaay walaay li ñu dégg ñaar trop méttitu nañ ko ñu ngi koy méttilu di ko rafetlu rafetul état bi ñu ñoo ko moom dañ ko war a defar mu rafet waaw c'est le Sénégal qui paye quoi. jërëjëf jërëjëf yow maa ngi lay nuyu. grand na rek. Fallou Galas Baye Mbène. ci loone sant lépp jàmm kay. grand problème yi am ci làmb tey naka nga ko gisee. Ah, loolu moom rafetul moom. barki Serigne Touba ndax stade bi ñun ñëpp ñoo ko bokk làmb ji tamit ñun ñëpp ñoo ko bokk mais bu dee ku mer rek wane sa bopp tamit amaana tamit dañuy yàqal suñu bopp barki Serigne Bamba lamb moom mooy suñu culture te ñun ñoo ko moom nañ ko defar mu rafet rek yaa mu gën a xam. jërëjëf billaahi. jërëjëf. grand maa ngi lay nuyu. maa ngi ci ci loo ne. tawfeex grand am ci lamb tey en tant que amateur noo ko dundee. sëñ Fall mooy loolu hmm? mooy loolu. xam nga jox la lamb. xamoo lamb lan nga xam. non yaa ma ah, am nga mbër. waaw non moom ay yaa am na mooy loolu. am nga mbër wala amoo mbër. non am naa mbër kay. kuy sa mbër. <laughs> Siteu mooy sama mbër. jërëjëf. gannaaw maa ngi lay nuyu. yow ci yow laa doon jëm. dëgg la sant sant yàlla bu baax. gannaaw dañoo gis problème yi am ci làmb mu bari lool. yàqu-yàqu yi am ci làmb mu bari lool. ba ñuy dem ay seize. tey loolu noo ko dundee. ah loolu moom du yoon. làmb moom lépp loo gis mu am ci rek. xëy na léegi la ci am. parce que bu njëkk loolu amul woon ci làmb foo la rek yaa ngi dégg mais man li ma gis léegi ci làmb warul woon mën a nekk comme maanaam combat bi passé diggante Sa Thiès ak Reug Reug yaa ngi may dégg CNG nañuy atte dëgg Sa Thiès bi mu ko daanee quatre appuis nañ ne moo ko daan loolu mooy yoon làmb dafa am loo xamante maanaam moo nekk yaa ngi dégg ñoom ay njiit lañu ay kilifa lañu lu am rek nañ ko wax mu jeex yaa ngi dégg ñu dem ba nga xamante maanaam weesu na ñu naan Sa Thiès di ko jox ay victoire lool dafa weesu Sénégal yëpp xam nañ ne Sa Thiès moo daan nañ leen ko jox victoire am lamb ñëpp ko xam loolu moo mooy yoon daal maanaam. mooy logique quoi mooy logique. lamb ñoom xam nañ ko. mais quatre waruñu ko dindi si lamb. warul dañ quatre appuis ku taxawoon indi ko fi Ousa Saw yaa ngi dégg bu ñu demee ba dëggal ko combat bi weesu ku nekk xam na ne man la sa waay quatre la man miy wax ak yow nii doomu mbër laa doomu alin Seye mbër laa. Alioune Seye mooy mooy sa baay. mooy sama papa yaa ngi may dégg kon ci làmb laa bokk mais xëy na nag dama ci nekkul samay rakk ñu ngi bëre yaa ngi dégg di lekk ci xaalisu làmb mais li nga xam ne maanaam moo gën nañ ko ciy def quoi loolu mooy yoon te ndawal gi nag balaa ngeen a dem maanaam ngeen wax ci. ah lu xew ci problème ndawal bi. maanaam yokk yokkute gi ci am. li Macky Sall wax. yàpp wàññi yàpp ba pare te yàpp bi wàññeekul. lu tax mu wàññi wàññiwul yi loolu dinañ ci si <laughs> loolu dinañ ci waxtaan problème loolu yooyu dinañ ci waxtaan ah. gars dugg fii xool gars yi ah fii mooy place su Mbaye Fall bu Serigne Babacar mbay Fall maa ngi lay nuyu. fay lañ la sëñ ci loone sant suñu borom naka yi tey. alhamdulilah amateuru làmb ngay dem ci làmb. problème yi am ci làmb ngay dem ci làmb di ko ci dund. tey lan mooy jàngat bi ak lan mooy saafara bi. Ah, mais dara ak làmb ñoo ànd. mais suñu njiitu ñu nekk si njiitu làmb ji ñoom ñoo war a xoolaat seen taxawaay ndax buñ demee ba football am VAR làmb war na faa mun a am VAR ndax tey làmb amateur buy dem bay dagg ay bee loos vingt 18000 25000 kooku sport ñan na ko mais ñun buñ ñëwee stade ñu am lu ñu neex ndax buñ ñëwee grand combat prix dip arbitre ñëw yàq làmb ji ñiy dem ñi jaar nii arbitre yi ñoo war a xoolaat seen taxawaay waa CNG xoolaat seen taxawaay ñun amateurs yi ak supporters yi ñu yar suñu bopp balaa ñoo ñëw stade ndax fii lépp Sénégal la mais tamit dafa am benn lancé boo xam ne dama koy lancé muy rëg-rëg ñun doomu jàmm gën lañ dëkk mais na changé communication nit dañ lay naw sa communication dañ lay bàyyi sa communication li na la rek te nit bul mer ba génne lu nekk sa xol nit kenn du tànnal nit ku muy àndal wala nit kenn du nit ku muy faral yàllaay borom jaam yi saa kees ndam yi yàlla la jik jërëjëf waaw jërëjëf noonu la deme ñu dugg ci biir xool gaay grand kaay ñu ngay lan yow grand man moom lu mu si wax leen nga ne carte appui carte appui maanaam da nga ko war a jëlee si làmb quoi parce que dafa yomb imagine yow doo entraîné benn un an ay mbooloo teew dagg seen billet ay nga entraîné ba taxaw ñu fay ay million benn takkusaan benn minute benn quatre appuis yàqu ko. jërëjëf ñëpp dem seen yoon dafa yomb. quatre appuis dañ koy dinde wala duñ ko dindi ak problème yi am ci làmb. mais quatre appuis dañ ko war a dindi ci làmb ji parce que boo xoolee waajal combat un an wala six mois wala ay mois yu bëri ànd ak say mbokk daj lu nekk ci làmb ñëw ay rëpp quatre appuis quatre appuis loolu du jël la tapé dañ ko war a dindi ci làmb ji ndax amateurs yi tamit bu ñu daggee seen ticket xoolal ñu ñëw stade dagg ticket 10 000 ñëw pas une minute làmb ji bëgg jeex ci ay sud yoo xamante ni daw daje nii nii ne rek carte appui loolu noonu dafa war a daj. carte appui yàq yi am ci làmb. waaw carte appui comme ça waaye rek quoi dañ ko war a dindi fii quoi garaawul waaw parce que carte appui dafa yomb ba mu ëpp moom wax dëgg yàlla parce que mbër bu entraîné 6 mois xam nga nga tàmbale sa 6 mois quoi xam nga entraîné ak ni nga xam rek ni ngay daj quoi ab nga ñëw rek nga jàpp benn carte appui rek ñu daan la si zéro quoi après ñu nekk sa gannaaw ñooy am problème quoi waaw loolu moom neexul quoi bu ma sañoon waa CNG dañuy dindi loolu quoi. jërëjëf jërëjëf eh grand kaay sa patron la day daw. grand xaama dugg fii xool fii suma ma paree foofu maa ngi ñëw foofu waaw maa ngi leen nuyu doom day lépp tawfeex ci loone yaa am jàmm bett naa la moom euh, problème yi am ci làmb mhm. yàqu yi am ci làmb supporter yi ak mbër yi tey loolu noo ko dundee booyee yarawul booy yarul boo yarul sa kër munoo yarul sa fop dem doo woon a yar loolu kesel mais booy booy bu ñu yar woon mun nga bëre sa mbër mun na bëre ñu daan ko nga jël sa yére jël dem ñibbi waaw mais booy ñoo yarawul rek loolu kese la booy ñoo yarawul jërëjëf nee na loolu dong la booyee yarul grand maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fall. xoolal caméra bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay bëgg bu baax. ci loone sant alhamdulilah. grand problème yi am ci làmb noo leen ko dundee ak lan nga ko lan nga yaakaar ne mooy saafara bi. saafara bi mooy booy amuñu yar beneen bi bis topp tamit mbëri dañoo bañ ko leen yàqal li ngay tëdd da ngay bañ ko la si yàqal ku la nar a yàqal nga écarté ko tegee ko ne nga doxal sa bopp n'est-ce pas loo xamante ni si ngay suturaalee sa bopp waroo nangu kenn di la ko yàqal léegi estar bi ñuy yàqal ne ku ko yàqal seen bopp lañ n'est-ce pas am nañu léegi bu ñu tëjee ek stade bi léegi ñoom ñëpp ay perte kenn naan état bi état bi état bi état bi def na seen war stade lañ bëggoon am nañ ko nañ continuer moo gi jërëjëf jërëjëf gannaaw maa ngi lay nuyu kaay euh, sëñ maa ngi liggéey bi maa si sa place la sa place ñaari gi la su mu tudd nga fi waaw problème yi am ci làmb ah problème yi ah na booy jàppalante seen biir rek yéenente jàmm ko kafree la loolu kese yàqu-yàqu yi nag. yàqu-yàqu yi ñu bañ koo def rek jàppalante suñu biir daal loolu laa am lu ma si waaw. jërëjëf. gannaaw yaa ngi si bopp bi de salaamaaleykum yow yaa nekk si place. waaw ana borom place daa génn yow yaa fi ne. maa ngi zéro waaw. bi. waaw naka mu ngi dox mu ngi la. seer na. torop torop torop. seer na torop torop torop torop. na def grand. waaw waaw sant Serigne Touba rek. tur bi naka la Jibi Ñing. Jibi Ñing waaw Jiba Ñing. Jiba Ñing problème yi am ci biir lamb ak stade bi ñuy yàq. tey loolu yan kàddu nga ci yow. yoon bàyyi dana war a bàyyi sport mu dox ndaxte gars yi moom rek lañ bëgg barke borom Touba fi nga taxaw ni ma place Michael. Mm-hmm. bu Fora waaw bu Fora waaw man maa ko man maa koy dóoral mais war na mën a ñàkk quoi. te gars yi làmb rek lañ bëgg jeunesse bi làmb lañ bëgg moo leen gënal football moo leen gënal lépp suñu sañoon moom làmb day waa day sarmada barke borom Touba mooy yoon de yow loo gis yow si li ma la wax. li nga gis mooy yoon. waaw nañu xale jeunes yi defaraat seen bopp. waaw defaraat suñu bopp xool suñu toogaay ah. bañ a yàq bañ a def ay affaire ah. gérer làmb ji moom ko te waa jàmm gën sax noonu moom làmb ji suñu xoolee. jërëjëf waaw rafet na. gannaaw def. ñu ngi ziar si jàmm maa ngi si baax. gannaaw problème yi am ci làmb ak quatre appuis yeeg yooyu lan lan nga yaakaar ne moom mooy saafara bi. làmb moom baaxoo naa coow mais man leen rek laay wax problème bi arbitre ñoo war a la ñu war a sanctionné comme ni ñuy sanctionné mbër yi comprendre nga parce que arbitre yi si day am ñu yàq làmb ji quoi comme ba après ñuy soog a retenir loolu loolu war nañ ko mën a jëlee si làmb làmb moom macha mi ngi dox parce que làmb moog coow ñoo ànd si coow lay commencé ci coow lay jeexee booy dañ leen sensibiliser bàyyi leen ak làmb ji yaatal affaire yi di sanctionné nag arbitre yi surtout arbitre yi lu si ëpp ñooy yàq làmb yi ah jërëjëf jaajëf kii sama safar la mais Malick maa ngi lay nuyu booy ci loone loo leen def waa ji laa fi da ngay añ ci wala. non non kii woon sama. nooy def fi yow. Ah? man laa liggéey ah. koy jox añ kon xaar ñëw ñu leen. lamb problème yi am ci lamb te lamb mu ngi yàqu tey chaise yeeg yooyu yëpp ñuy yàq ci lamb tey lan nga yaakaar ne mooy problème bi. Ah, lamb instant yi gars yi mooy ñu ko yàq ñoo ngi biir lamb ji ñu nga lamb mooy loolu noonu paa boobu noonu Lamine Samba moo ne Modou Lo carnet à appui wax ko benn yoon noppi làmb daal ñëpp mooy loolu benn lañ dañoo war a xool lu ñuy si làmb ko waa làmb cosaan la. jërëjëf waaw. yi naa def sëñ bi yaa ngi añ de. yaa ngi añ yàpp laay lekk ceeb yàpp ngay lekk. yaa ngi dem làmb. non man du ma làmb. tax. dara amalu ma yaakaar naa amul non non man football ah. ah. mhm. si fuddoo lamb benn dem stade. mosoo hmm. kon yàlla na Bayern dóor. waaw parce que ñun Bayern na tamit moom la ñuy bëgg ndax saajo Mané. ay seex. Cheikh Tidiane Sy gannaaw da nga def da ngay dem làmb hmm? yaa ngi dem làmb làmb waaw maa ngi dem làmb waaw hmm. waaw lan nga gis ne problème bi nga xam ne moom mooy yàq làmb ah man kay violence bi daal euh, euh, moo moo xaw a soofal làmb léegi nii quoi làmb bu njëkk bi daa gënoon nekk mais léegi violence bi dafa mu wàññeeku man daal loolu daal bu mu nee dañ daal làmb gën a neex làmb suñu culture amul lu ko dax hmm. waaw morceau ñaata. kan lii nii. 1000F 1500 2000 dem kaw. ok defalal 1000F ma ok léegi léegi. Ah, ah, ñoo ngi ñoo ngi fooraa. dañu fekk suñuy garan dañu fi fekk suñuy grand tamit mais dañ leen di nuyu bu baax a baax ah, gis ngeen problème yi nga xam ne moom moo nekk ci làmb di yàq làmb gis ngeen problème yi nga xam ne moo ngi ci biir làmb di yàq làmb gis ngeen amateur yi nga xam ne ñoom yoo ñëw làmb di sañsa ba jekk di solu di ànd ak seen i njaboot Ah, di taal seen oto di ñëw stade yàqu-yàqu yi am ci esat grand kaay kaay kaay grand ñëwel ni taxawel ni grand maa ngi lay nuyu. mu ngi lay fay bu baax Fallou. problème yi am ci làmb damm seize yeeg ah. agression beeg ah, jël alalu jàmbur beek yi ñuy def ci lamb yëpp tey lan nga yaakaar ne moo koy saafara. ah loolu dana war a mais waa CNG daal ñoo ci war a jël seen matuwaay bu baax baax parce que tamit xam nga tamit arbitre tamit dañuy yàq làmb ngay entraînement ba sonn na nga def lu nga war a def yëpp ànd ak say mbokk nga ñëw ba ci bis ba ñu yaaxal sa sa bis xam loolu tam dafa metti ci xol mm-hmm. moo tax waa CNG tam nañ jëlaat bu baax xool baax arbitre yi ñuy arbitreloo parce que loolu tam na baax baax ci làmb bi mm-hmm. booy moom yaa ma gën a xam mooy loolu mais yàlla baax na mm-hmm. jërëjëf jërëjëf yaakaar naa ne loolu baax na il fallait que xale yi yaru ji ànd ak dal il fallait que xale yi ànd ak yi nga xam ne làmb suñu sport la làmb ñu ñoo ko moom làmb ñu ñoo ko mën a defar ñu ñoo ko mën a yàq nañ ñu takkuwaat bu dëgër bu baax a baax ñu xool nan la ñuy fexe pour euh, lamb ji mën a jëm sa kanam ñu xool nan la ñuy def pour làmb ji jeunes yi mën a ñoon doon benn te ñu bàyyi li nga xam si ni moom lañuy def ci biir stade bi stade bi ñoom ñoo ko moom Cheikh dina leen won stade bi arène nationale Cheikh dañuy dem arène national nga wan ñu li nga xam ne moom moo am arène nationale après combat Reug Reug nga xam ne moom mooy saakees yàqu-yàqu yi fa ko defee nga tele tegal ko ñi nga xam si ñoom ñooy seetaan seen émission fàqat ñu a seetaan loolu mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëf bu baax ak yéen ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen émission ak beneen micro trottoir ñu xool amateur yi dugg ci biir mbokk yi bientôt damay dem ci grand place yi toog ak ñi nga xam ne mooy magu làmb yi boo toog ak amateur yi nga xam ne ñooy nekk ci grand place chaque jour di suivre lamb ñun la ak yéen leeral TV leeral point net leeral FM dañuy béggalante ak yéen te mbokk yi xaar leen ñu ngi ñëw dina métti dina tàng jërëjëf. Te